làmb da koo sopp boo déggee ni ñaari bëri waxee nga xam ne xam nga champion esprit la waaw day na ci bopp da koy fanaane di koy yeewwaat bu ñu waxee rek nga xam ne ñoom dañoo bokk ci làmb bu ñu waxee rek nga xam ne xalaat nañu ne bu mbër bi yegg wax nañu ko mën a ñëw ndax ay naanaan la Mama Lamine wax na ko léegi li muy jël garab dina suñ coach bi Aliou Diop yàlla ko yàlla yërëm ànd ci woon. amiin. waaye sama collègue. léeg-léeg nga yor mbër doo werante moom ci yenn yi bu xaajoo ci dara rek da moom ndax na lu nga gis ndax moom ci biir làmb la defaroo premier defe tam am na jàngat bu ñu ko def bu mu ci jëlee deuxième ba nag mën moo ko def mbër ndax booba entraînement laa xool lu métti loolu ci digganteem ak xale yi ma ne ko pare woo mu dem pare ñu daal waaye boobu ko jógee danga ci beneen maam laa bëgg a demal entraîné ji moom kenn du ko ci soññ ko. bi muy bokk ci galaawu Gaston bi dañ ne waa Gaston xale ay combat bëri bu nga bëggoo dugal galaaw bu ne sama mbokk la dama koy def sama gas moom lu mu waaye ba mu duggee ca galaaw ba xamal nañ garde de l' champion la. ñam fa daje ñëpp ñoo ko jublu di bëri ku ci nekk la daanaka. day xeex day bëri. bëri nag bëri bëri nag day ëmb lépp loxo tànk la. te da koy def kon ñaari mbër lañ yoo xamante ne nii laa ma soxla na rek mais rawatina nag yar bi ñii dafa am solo image bi dafa am solo. ba ki démb dafa am final bu am ci. 5 millions yi seen te ko ba ci finance bi bu Serigne Ndiaye jëmee ci Doudou Sané di dibb tànkam da koy xajal di dibb dem bu doon bëri arène bi accompagnateur yi lay so ñoo ñoo lay puus xeex ak yow xanaa bi tëlee bi witoon yow gëmoo ko kon bi la lamb soxla mbër bi moom moom bi moom xaalis bi moom moom bi te yow da ngay liggéey moom mu xëy di entraîné kon ñoom ñoo war a am fulla ba ñiy sotti gàllaaj yi duñu star yi yéen yéenay star yéenay wax léegi bi mu amee blessure ma gàllankoor la daa daa toog xaar ko kon mbër mu ne sa morom mooy sa trésor kon ñu ne la mu soxla ay adversaire la njëkk pour benn takkusaan li nga wax te lii lii laa mën a koo soxla kon daal euh, dañuy ñaan rek ci jour ba jàmm ñoom ñëpp ñu wéeru. fekkee ko la mais al bi del ndax promoteur bi xëccoo woon na bu defee bi mag xam naa ne ñi ci ginnaaw ndax bi ñu soxla combat bi bëri na tuuti moo doxoon suñu diggante ci waxaale bi waaye dafa xëy rek damay feer kaa jël avance wala nga ko bëgg a jox keneen xam nga moom ngay xale bu xaw a kii nag moom mais bëtam rëy la événement yu mag yëpp mi ngi ciy wax suuf yàlla na réussir la yàlla mën na ko yàlla ko defal beneen bi mooy ba may tëjee damay jëm ci làmb dama seen bii jàll li làmb soxla mooy mbëri nañ def bloc défendre seen seeni intérêt jaaduwul mbër yéeg jaar ci loos bi ñu dagg ko da ko waroo yéeg xam nga lu rey waa làmb xaajaloo dañ def bloc défendre seen i intérêt li kenn xamul lu muy nuwaan ah. mbër bu dee dugg am na fu ko neex jaar li am solo mooy bu mu ëppal mais nga yëg ci kaw ñu daggal ci un million loolu caaduwul na ñëpp taxaw dal ci kaw CNG bi loolu caaduwul jërëjëf. jërëjëf. lii nga xam ne moom la ñaari mbër yi def parce que am na ci mbër yoo xam ne tey jii taxale leen nii kenn mënu leen ko def. ñuy xool tur ñoom mu war a solo doon ñu mu war a jaar ak naka mag naa ko naan lii yaa ngi jàng leneen bi mooy wax ni presse bi day dafa am cër ci mbir mi tey woo ñaari mbër taxawal leen kenn ku nekk ganaan ko xanaa da ngaa ragal sa moroma xool ko jàkkaarloo la moom defal nangam loolu di tuuti joro loolu nag am loolu bu njëkk ba te tey jii ñu ngi commencé am mais nag yéen ñi nga xam ne yéen a ngi révolutionné la am yéen yéen a ngi fexe suuf mu béy ñun nag esprit bi ñu am rek mooy esprit mag di sóor parce que xam nañ ni saa violence amee ñun ñooy dem di bind ay clémence wala ay retour wala ay euh, di jéegul alors léegi li may wax rek mooy félicité waat bu baax Ibrahima Diop ñi nga xam ne tey dama ñëwee am na lu bari loo xam ne dafa commencé euh, révolutionné ci lamb maanaam mbër yi war nañu sax kontaan parce que ñu mu dugg see ak léegi dafa am benn méthode boo xam ne noonu lay liggéeyee amul benn mu ngi dëgg ba pare ni deser ma nangam soo demee ba bëri ba pare du la deser dërëm yow la nga am CNG dem dem jëm jëm loolu bokk na ci li koy dañ koy rafet mm-hmm. parce que ñun ñu ngi topp ay nit yoo xam ne ñu jeex defar làmb moo ñu parce que programme def sa programme dépensé ci ay millions lu mel ni El Hadj Ndiaye Rose di ko daloon trente cinq millions te tëggul làmb ñun bëgguñu benn benn promoteur loolu di la dal loolu moo tax souvent suñu woowee ci defar ñu ànd ak CRD defar mais bu ñu paree ay déception la ñu am Ibrahima nag mention spéciale di wax ni rek lii lu ñu war a vulgariser la ndaxte tey lii Maama Lamine def ak euh, Garga ñun manaate yi dañ ko dañ dañ ciy parce que bari na mbër yoo xam ne kenn mënu leen a def loolu di wax ne aussi li nga xam ne Max souligné na ko sànq il faut que ñun ñëpp ñu nekk benn dafa jaar sax ñu def conférence de presse wala benn point de presse CNG am nañu droit teg règlement euh, seen règlement mais règlement ay nit rek nga koy defar il faut ñu ci ànd ak ñun mais doo toog sa biiru ko rek daal di décréter leen ñëw ni waxoon naa leen ko naa nga xam dara non lamb jaar ci kaw tribune yàqu ko su fekkee ni nombre bi nga war a indi moom nga jaarale ci kaw tribune bi loolu yàqu te mënuñu gis Balla Gaye ba ci dem moo jaay mu jaar ci bunt parce que ñoom dañ ni bunt bu dul bunt mbër ku fa jaar dañ la war a sanctionné Balla Gaye jaar ci boo xam ne buntu mbër kenn sanctionné wu ak quatre-vingts personnes tey kon faute bi daal dañuy xaar ba ñii ñëw ñoo amaseen ñëw ñu doog leen ko teg loolu ñun nanguwuñu li ñu bëgg mooy ñun ñëpp ñu toog la main dans la main ñu toog waxtaan ci suñu biir waxu weddiwuñu CNG il faut sanction am mais ay sanction yu excessif loolu ñun loolu la ñu nanguwul bu fekkee ni par exemple dañu benn mbër dafa am surplus dañuy wax ne dañ lay dagg suñ lay dagg dañ lay li nga xam ne loolu la tribune di di fayee mais dañ koy doublé deux fois ba euh, Eumeu Sène bët bi démb quinze mille la woon ñu def ko trente mille léegi nag pourquoi ñu def trente mille su dee yéen ñaar yéen ak promoteur bi yéen a koy séddoo quinze bi yu benn billet boobu moom ngeen war a jël séddoo ko yéen ñaar man li may wax fii ci fii ci presse bi dama koy wax ak ñoom démb laa ko mujj wax ak ñoom dafa am loo xam ne ñun il faut ñu toogaat ak CNG bi nga xam ne ñoom ñoo leen jiital topp seen ginnaaw pour ñu liggéey ñu mais li ñu bëgg li ñu war a liggéeyal mais du leen neex rek li war a liggéey. moo tax nag man lu bari lu ma bëggoon a wax Babou wax na euh, kii euh, Max wax na ko lii may wax aussi xam naa ne man ak sama président Babou ñoo ko bokk di ko wax ak euh, Mbaye Diallo mi nga xam ne manager la comme ñun. ñun actuellement défendre les intérêts des lutteurs moom mooy sunu sunu sunu liggéey kon nag il faut que ñun ñëpp ñu dajaloo les promoteurs les managers les lutteurs ñu toog benn benn ci autour d'une table waxtaan li ñu bëgg pour CNG dafa ñu parce que sunu sunu CNG sunu li ñu liggéey te bu amul benn promoteur mbër du liggéey euh, CNG du liggéey euh, euh, manager du liggéey kon nag il faut ñu xool lan la ñuy def pour que ñun ñu nekk benn waxtaan lan la ñu bëgg ci CNG liggéey mais CNG bi moom mooy jël ay décision rek yow lu ko nekk di di liggéey loo xamante ni day day nekk au détriment des autres jërë ngeen jëf